Kita pas bi bu <laughs> yàggul sa frère hmm. eh, Waly Ballago Seck defal la teraanga. c'est une mau waaw mooy bi njëkk sa diggante ak moom ci teraanga boo sàkkul. voilà qu'est-ce qui se passe. non non ni ma koy laaj tout le temps. waaye dafa def benn geste bu rafet en tant que artiste ak ay nawleem quoi noonu laa ko gisee. donc euh, coow li bëri na lool mais. xam dafa bëri coow pare ñuy naan <laughs> yóbbul nañ ko artistes ñu bañ.

maa ngi jàpp turam parce que sama papa baaba ma jàpp turu mm. euh, ma ah, boo mën a waa dafa ma indi ma indil la benn xar ah, ngi fi parcelle ma bi bon ñu jiit le quoi mm. loolu sama toog tombe bi la ko jox après après woo nga waale ne ko benn benn deux secondes ma ne mais geste bi rafet na kontaan na trop mu ne ma fan nga ma ensemble ak jaajëf te mm.

yàggu fi lool. waaye def na preuve nag bu fekkee dëgg rek neex def na euh, ay jaloore quoi vraiment ci xale. dama koy encouragé di ko ñaanal yàlla nag parce que nag. Mm. Euh, li mu li mu li mu fi mu jógee li mu débuté ak fi mu dal parce que waale boo xoolee 2009 la débuté.

majeure partie bi sax légui déggatuñ leen majeure partie bi hein, hmm. hmm. vraiment maintenir donc aussi ku ko xol hmm. la la quoi. bu may la. ok bu yalla artiste may la. té té lu ko nit waxal ci nangul ko la c'est ça <laughs> trop polémique yooyu. Mm, ay Pape Diouf ay Waly ay mm. ay ay ay Baba ay Youssou ay Nder non non non man je suis boo xamante ni ñëpp samay xarit la ñu. Mm. Waly Seck gërëyee la. def na jaloore kenn du ko werante barki salaatul fatiha. clip Papa Diouf. extraordinaire. Mm-hmm. Youssou Ndour sunu papa la Baaba Maal sunu papa la ak fi réew mi toll nii Sénégal